jàpp sa juróom-ñeenti maam jaay jeneen maam joo gis donte du sa maam di nga xam njëgam. non moom lu muy liggéey moom la concerné Lamine waaye man li may liggéey xam naa ko te bu bés baa dinaa ko wan. man Modou Lo dëkk ma partenaire ba mu nekk sama ambassadeur. ci làmb ji ngeen bokk. làmb ji roi des arènes ñoom daan la man doonagul sama roi des arènes bis bu ma daanee naa ci bokk. bu koy jël di tëdd am bu jëlee sama kóoloo fi mu ne bu koy jël day dañ koy lëng mu salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum monde entier man la Bombardier maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 8 mars incha allah si diggante Franc ak Bébé euh, maa ngi jox ñëpp rendez-vous fa dégg nee ma massa أصل صدور أصل أمور تصفيق suduri aslin umuri kasfuri bil aqdar asbil suduri aslin umuri kasfuri bil aqdar rabbi bima yashrahun asqan kitabi jafi dalikan billahi alladhi rabbi jafi karim la sharika lahu وصدر يوم نور صدر من خام ما في صلاة الله في أبد أدري في سبيل كل أتكون على الذي أمن وارد ودد قدر

yal na yàlla musal la ci caaxaan musal la ci làmbam musal la ci musiba musal la ci balaa musal la ci ay oto musal la ci ay justice musal la ci pexem noonu te yàlla may la ndam lu ànd ak jàmm ci darajay Seydina Muhammad barke borom Tuubaa barke juróom-ñaari sëriñ Fall barke weeru rajab barke bu soxna maam Jaara bu soxna barke Nooré ni bun afan barke Cheikh Mouhamadou Karam barke Nooré ni barke sëriñ Touba mooy yaay Karam Boy sama xarit te ma ñëwoon fii Mbour seet si ko muy sunu yaay muy di nekk yaay yu baax chaque may wax kalaama tey ma ma ñëw mbuur nag ma ne bala ma ñëw il faut ma ñëw gis waajuram mais suñu yaay yaay ju baax la tey ma ñëw moo ko fekk fi aussi Ablaye Mbodj kii mooy magi Kara Mbodj xam nga ne kon Lamine Kara xale la Naar Mbodj ah ñaar topp ah, ah. Naar Mbodj moom mooy seen mag nu naar naa gën a miin sax vraiment te daal kontaan naa parce que nit aussi boo boo xamee ak moom la fexe bu xam ay waajuram yëpp vraiment kalaam ku baax la. kenn ku baax nga bëgg nga ko ba ñëpp xam ne bëgg nga ko te li ngay wax du gisal ci yow. ndax du ba nga koy wax jox la dërëm. wax dëgg yàlla waaye foo toll. yaa ngi koy tudd yaa ngi koy wax. te ñun ñëpp dañoo jaboot nag li nga nekk ci yàlla jàppal may la ci ndam mu ànd ak jàmm ak xéwal ñëw Mbour ñu seet si nag sama yaay mu yaay Kara kii nag mooy naar Mbodj séeri de Sila waaw naar mbooj mi nag mooy magi kara mbooj mi yow di sama xarit nag baax lool nag vraiment ñoom aussi ñu bëgg ma nag bilaay walaay talaa ñu bëgg ma lool def ma comme seen doom ci kër gi moo tax tey bi bi ma ñëwee Mbour ma ne foog ma ñëw ci kër ci sama xarit nag kara mbooj seeri Fatou Mbaye ñoom siyaasi ren bilaay walaay naa moom bu baax naa <laughs> naa daal yow ku baax nga kontaan naa baax baax. kenn kenn gënu la macha allah kenn gënu la li nga ci bëgg rek moom yal na la ko yàlla defal. amiin naa nit ku baax nga. am nga jàmm lool ko wax dëgg yàlla. macha allah yal na yàlla laf ca daal. ñu yeggali ñun tamit fa suñu yéene. incha allah bu neexee yàlla. kon daal tey tey maa ngi woon fii tey ci kër Kara Mbodj séeri fa fa fa fa fa Fadu ku jàpp sa juróom-ñeenti maam jaay jeneen maam joo gis donte du sa maam di nga xam njëgam non moom lu muy liggéey moom la concerné Lamine waaye man li may liggéey xam naa ko te bu bés baa dinaa ko man Modou Lo dëkkuma parcelle ba mu nekk sama ambassadeur. ci làmb ji ngeen bokk. làmb ji roi des arènes ñoom daan la man doonagul sama roi des arènes bis bu ma daanee dinaa ci bokk. bu koy jël di tëdd mu jël day tëdd day ñibbi dañ koy lëng mu ñibbi. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum monde entier man la Bombardier maa ngi jox ñëpp rendez-vous le 8 mars incha allah si diggante Franc ak Bébé Saloum euh, maa ngi jox ñëpp rendez-vous ku ma fa dégg nee ma Massa.